Ahmed Aïdara bismillah atteew Khalifa Sall eh! Mane dora ne dooraat de la soleil yéene kay ne kees d'avance su mairie bu Ndakaaru Ndiaye jël Joob jee waaw ma ne attekat ba day nee ma Malick la mot waaw nee na gis nga atte bi de, lépp dana jaar yoon lépp dana jaar yoon laa la wax te dee njaaxaanaay rek maa la ko wax yéene kaay gi ne waaye mairie bu Ndakaaru Ndiaye jël Joob jee yoonam ma nga ca wala yoonam ne ko ca dana défendre Khalifa Salwa waa wala dee ma ne loolee day moo indi coow la kon démb maître El Diouf ne mënuñoo tere nag mairie bu Ndakaaru Ndiaye jël Joob goo ne yoonam ne ko ca constitué partie civile waaw taxaw Khalifa Sall mi ah loolu mënta ne ma ne la procureur ci boppam Sonko day nax askan wi laa la wax man maître El Hadj Diouf maa ko wax ba sobili ne maître Beuz waaw def na ba samba démb de moom maître El Hadj Diouf yéen kaa ngi ne coowal Khalifa Sall day waaw ma ne la mbir yu sérieux nag ñu ngi doog a kon tàmbali te coowal Khalifa coowal Khalifa Sall googu réew mi quotidien nee na la woo de procédure waaw ma mbir ma am na démb laa wax sur quotidien na dëgg la gis nga xam ne nag maanaam kon ñoom ñooy layal Xalifa Sall day waaw ak waa kër procureur ah guerre pire ma ne lu ci waxtu yoo xam ne day defante ko mi sax enquête yéene kaay ne coowal caisse d'avance loolee waaw ay mbëkk werante am na ca day waaye nag am na ca yoo xam ne ah. saful yàpp te saful jën neexul dégg maître El Hadj Diouf day waaw xamal ne agence judiciaire de l'état ne xam nga bëgg a dagg ay bopp bëgg a dagg ay boppam tere laa ne la waaw sa bopp ci boppam mooy mujj dagg looloy dëgg maître Yérim Thiam a ah. nee na agence judiciaire de l'état day mën naa représenté na kon service su nguur gi yëpp nag laa la wax wal fajri ne en tout cas ni mbir mi dooree day waaw neexul de te baaxul de ci Khalifa Sall mi lee ah, waaw ci lu jëm nag ci wàllum seere yi nga xam ne kon danu ne dafa am fu muy yem waaw wala dee terminé ne kaay ne en tout cas day démb Sall daal baax waaw nee ma meeting biir ñii sax dem bay way l'observateur ne en diggante avocat wu Khalifa Sall yi day waaw ak agence judiciaire de l'état waaw mbir mi démb dama la yombul dee déedéet Idrissa Seck ci tribune yéene kaay ne président Macky day waaw fi nekk nii li muy daal du dara rafle ay candidat yu jàkkaarloog moom pénurie yu candidat yu crédible yu mën a jàkkaarloog Macky Sall loolu la Macky Sall di liggéey instant bi eh waay sama ko wax a jël a leen a moom kon ah, sa taragrus yéene ah, lii feeñ nii waaw wane na ne tey la gën a taxaw ngir Khalifa Sall ci boppam kon génn ci kaso bi yéene kaa gi ne waaye président Macky Sall nguuram day wéewoo ñu ñaan yàlla Idrissa bañ a falu de ah, ma ne dana dana topp kon président Macky Sall ak waa këram dana jëlee am soono xam ne kon maar dey taali Macky kay fi nekk nii sax daa ah. wal fajri yéen i kaay Sidi Lamine Niass ki ne président Macky Sall day waaw safaraa ko wër de fi nekk nii maar dey taali dund ko mitti sax ma ne nga xoolee ma jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñu nimiku ci wàllu njàng meeg la école bi waaye itam grève yi nga xam ne kon ñu ngi ni tulleeg ma le ma ne dañ ne woon 2018 day année sociale lay ne ne kaay ne en tout cas day ni 2018 bi tàmbalee neexul ci ñoom neex bu baxee xeeñ barke ma ne laajte ñu ne syndicat yaa ngay mars yëral ma CNDS tojañ mbedd mi ñii di laajte ñu yokka leen seenug salaire yéeni kaay ma jamal jàngi ne dañu ne woon année sociale la waaye ane bii ni mu tàmbalee baaxul de l'année sociale démarre mal ak ay grève ci ay secteurs yu bëree bëri laa la wax dañ ne woon ubbi tey jàng tey waaw ubbi tey grève tey loolu lañu fi gis kay université yaa ngi yëngu waa CUSEMS si jàngalekat yaa ngay grèew gré naat yaa ngay tàkk ca université Cheikh Anta waa santé waaw ñoom it la ñuy sàkku day mooy gouvernement bi ci boppam mu xaatimoon signé ko ci 2014 na waatoo ak moom ma na Casamance ak lu tolloo juróom ñaar caabi day waaw ni ki kon suba waaw dana wax de dana wax de te musiba bi nga xam ni te ba faa bayoon ne de diggante ñaar fukki doomu aadama ak ñaar jàpp ñaar ko ca kaso ba xam ne moo nekk te Ziguinchor te lañ leen di toppee day mooy rey ay doomu la ilaha illallah association de malfaiteurs waaye tamit yor ay ngànnaay ak yeneen ak yeneen sax rébellion day wax Salif Sadio termine yéene ne Salif Sadio day si Zik FM kon la waxee exclusivité waaw mais nee na waa MRDC waaw laale wuñu dara ak rey kii nga xam kon am parce que na yi nga ak arme yu di gi ne Salif Sadio de la wax dañ leen di bàyyi ak FM ko mi quotidien day ñëw ak day ci kër Serigne Cheikh Tidiane Abdou frère Serigne waaw nee na njiital mustasidin wal mustasidat yi day juróomi atu yàllaa ngi nii gisul bàyyam yaa jum wala maa jum si Malick ne maa ko wax Serigne Abdou Sima wax day ci Vox Populi nee na sëñ Moustapha li wax amul te attaqué wul Pape Malick de déedéet waaye bàyyam lay attaqué Serigne Abdou Si yamu ca ndaxte surtout Alaaji Malick bi nee na Serigne Moustapha si day 2012 ba 2017 gisul bàyyam di Serigne Cheikh kon nag il faut ñu dakal lii tribune yéene kaay ne député buy dugg assemblée nationale ñu jox la fukki million waaw gars yi dañoo weeri woon Ousmane Sonko de mais Ousmane Sonko waaw tey la gën a dëggal wax ba noppi gën a dugal Moustapha Niass nag ndax Ousmane Sonko wax waxaana ay terrain pour ay député maa la ko wax Ousmane Sonko ne ñii di ma weddi waaw bu dee wóolu nañ seen bopp nañ ñëw ñu def débat débat public laa la wax ma génnee ay preuve yu ñu bind noir sur blanc ay preuve écrite yéene kaa ne loolee dee bu dee la waaw assemblée tey ñu dee de ndaxte benn milliard ak juróom benn téeméeri million ak juróom fukk ci ay millions un milliard six cent cinquante millions la ilaha illallah mooy génnee ci gas ga libération ne Imam Ndaw day laa ngi nii dégg daan naa Modou Lo ba nuppi ñëw Balla Gaye 2 ak Sa Thiès ña nga woon kon ca entraînement ba open press ba Lac de Guiers ci laas eh, dama ne Modou Lo man Lac de Guiers 2 dama koy daan dama duma daan ko <laughs> alaaji loolu moom estor la tontu leeg président min Gueye la bu paree ma ne ko alaaji tëjal